mbokk yi jërë ngeen jëf fan bi ngeen ànd ak programme Prestige TV lëkkaloo ci prestigethies.com Euh, ñuy rafetlu une fidélité à votre télévision régionale euh, ñu nous ak yéen ci rendez-vous de l'actualité comme nous ñu koy faral di defee rek euh, ci jamono bu nekk ci télévision régionale du Prestige TV ba tax na nag askan bi ñuy seytaan ca bitim réew ca réseau bu ñuy IPTV waaye ñeneen ñi di ñu seytaan ci suñu plateforme yi bi ci Facebook live page site d'information www.prestigethies.com ak page YouTube Prestige Nous gën a rendez-vous de l'actualité l'actualité ci bés bi tey bi xam ngeen nag Sénégal bés bu yàlla sàkk rek ministère de la santé et de l'action sociale euh, muy amal point du jour xamle ak askan wi ana fan la Sénégal toll ci jàngoro googu di coronavirus euh, leeral yi ci kanam ak docteur Aloyse Waly Diouf euh, ci jamono yi nag foofee ca Ngaye Mékhé waa Ngaye nag depuis feebar bi duggee ci miim réew ba léegi amuñu benn ka ba tax na nag ñoom ñu ngay xar seen tànku tubay def seen kéemtalaay kattan ba feebar boobu boobee bañ a dugg ci commune bu ngaay leeral ak suñu correspondant fàllu ndaw ca ngaay mexe waaye nag ci jamono yi nag jàppalante ñuy faral di def di jàppal ma jàpp ngir bokk daal ah, ñi daan feebar bi tax na ba chef de centre impo et domaine bu Thiès di ñibbisi amol nak ndimbal bu takku boo xam ne nag jagleel ah, maire de ville talasila leeral ci rendez-vous d'actualité bi waaye nag caf bés yi weesu nag fële ca puut ministre Mansour Faye ah, jëmmaloon nag distribution aide alimentaire euh, mbokina l'olé nag loolee moo gën ci euh, rendez-vous de l'actualité ci bës bi euh, di ñuy rafetlu seen fidélité à votre télévision régionale Sounessa, l'union ñu ñew ci Euh, mbokk yi jërë ngeen jëf euh, ci seen fidélité ci seen télévision euh, Prestige TV laataa ñuy door xibaar yi rek ab communiqué boo xam ne moom lañ leen di jàngal xam ngeen ne xalif général bu Tivaouane de Serigne Babacar Sy Mansour moom ci wàllu boppam nag xamle na ci ab ndawam yi ne la jëm nag ci guddib laylatul xadr ñoom duñ ko amal ci mbooloo comme niñ ko daan defee bés at bu yàlla as bu jot waaye nag la jëm it ca jullib korité gi nee nañ nag duñ ko amal ca mbooloo la waral loolu nag nee nañu jamono ñuy nekk di jamono mbas nekk na loo xam ne euh, day euh, xaw a doy waar ba tax na nag ngir aar taalibe yi ci ni ni mel moom ci wàllu boppam daal xamle na ne la jëm nag ci wàllub julub korité ci fan yi di ñëw euh, duñ ko def mbooloo ñu jàpp nag moom ci wàllu boppam xalif bi at bu yàlla at bu jot rek moo doon jiite jullib korité wala tabaski ca bayal boobee di xal xuus waaye nag doon amal it bés bu yàlla sàkk euh, at bu jot li ci mel ni màggal guddib laylatul xadri euh, ca zawiya ak El Hadj Malick Sy eh, bu Tiwaawoon la waral nag mu eh, dàkkal ni ni mel moo ne daal dafa tënku rek ci njàngalub eh, yonente bu yonente yàlla Mohamed ak it ci njàngaleb ko Seydi El Hadj Malick ba tax na nag moom mu ngi ñaan nag taalibe yi ñu daal di toog seen kër daal ñaan rek ba yàlla def kemtalay kattan ba feebar bi di coronavirus daal di jóge ci mim réew di Senegal mën nañ ko waxee sànq rek la jëm nag ci wàllu doxalinub coronavirus ci mim réew di Senegal. Sénégal euh, ba ministère de la santé et de l'Action sociale Nous faral di def point du jour dans le xamal askan bi ana lan ala fan la Sénégal tollu ci bi di coronavirus bu euh, ci ñaari fan ci weerub mars ci atum 2020 euh, tey ji nak ci alxames yi yemook ñaar fukki fan ak benn ci weerub mai euh, ki di xam moy directeur de cabinet bu ministère de la santé et de l'action sociale di docteur Alois Walidjouf, Diouf daal di jakarlok taskatu xabar bi wax nak situation du jour ñu tewlu ministère de la santé et de l'action sociale jotna na résultat examen yi may wajé lim. ci junni ak ñaar téeméer ak fukk ak juróom mi test yi ñu def juróom-ñeent fukk ak juróom-ñett ñoo ci positif maanaam juróom-ñeent fukk ak ñaar ñoo ci ay cas contact juróom-benn yi di ay cas communautaire benn ci Mariste benn ci Castor benn ci cité Kër Damel benn ci Plateau benn ci Géejawaay ak benn ci Touba juróom benn fukk ak juróom ci ñi ñu hospitalisé woon wër nañu bésu tey fukk ak benn malade ñu ngi ci suñu service réanimation yi ñeneen ñi des hôpital ñu ngi tane ci bésu tey dalee ko ci cas bu bi Sénégal am woññi nañu ñaari junni ak juróom-ñetti téeméer ak fukk ak ñaari cas junni ak ñaar téeméer ak juróom fukk ak benn wër nañ ci fanweer ñàkk ci seen bakkan mu des suñu hôpitaux yi junni ak juróomi téeméer ak fanweer ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi woo askan wi ñu sàmmoon sàmmoonteeg digle yi nga xam ne moom la ñuy joxe maa ngi leen di sant di leen gërëm Euh, ci jamono yooyu nag euh, foofee ca ngaay mexe ngaay mexe nag ñoom de euh, bi feebar bi duggee ci miim réew ci miim réew ba léegi daal ñoom ñu ngay def seen kemtalaay kattan ba daal la jëm nag ci feebar boobee amul nag ci commune boobu la leen ko may nag mooy bàyyi mooy jublu yi askan bi di jublu ci tere kay docteur ak euh, distanciation yeeg ni mel ak maanaam moytu euh, jangoro bi euh, ñoom nag ci lañu tënku ba tax na nag waa ngaay nee nañ daal dinañ def seen kéemtalaay kattan ba feebar bi di coronavirus du am place mukk ca seen commune leeral ci nini mel ak suñu correspondant ca ngaay mexe di falu Ndaw Ngaye Mékhé Ngaye bi nga xamee ne feebaru Covid 19 bi dugg na ci biir réew mi ba léegi mun nañu jàpp ne ñoom amaguñu benn cas positif boo xam ne nemmeeku nañu ko ci district sanitaire bu ngay mexe loolu nag li ko waral rek mooy bi feebar bi duggee ci réew mi ba léegi ñoom am na taxawaay boo xam ne euh, taxaw nañ ko dugg ci biir xeex bi bu baax a baax wante tamit dugg ci biir askan yu waxtaan ak ñoom pour sensibiliser leen kii nga xamné mom moy Abdoulaye Gakou coordinateur cellule de communication pour Covid 19 bu district sanitaire bu Ngaye Mékhé sék nañoo ak moom waxtaan mu wax ñu bi feebar bi duggee ba légui ñom nak lañ ci euh, taxawé ci concerne fi Covid bi ñu ngi sant yàlla parce que boobu ba nëgg yi ñu ngi dégg euh, département yi région yi communes 19 fu ci ne ko fay dégg. waaye fii moom jusqu'à présent ba nëgë ni ñoo ngi sant yàlla loolu nag aussi euh, comme ni ma ko waxee ginnaaw euh, ya-, jàppale buñ ci yàlla jàppale aussi dafa am liggéey bu mucc ayib boo xam ne aussi fii au niveau du district équipe cadre bi ak les acteurs communautaires def nañ ko donc muy vraiment prévention loo xam ni yoo xam ni dañ a engagé nit ñi parce que boo xoolee communication dafa reposer ci trois points c' une communication sur les risques yooyu c' était l' des techniciens il fallait que techniciens y ñëw wax nit ñi lan mooy feebar bi nan lañ koy wàllante nan lañ koy moytoo loolu c'était c'était la partie réservée aux techniciens mais à part les techniciens il y avait l'engagement communautaire l'engagement communautaire lan lan lu ko tax ñu jóg mooy dugg ci askan bi ñu am sañ-sañ ñu am kàddu ñu engagé leen waxtaan ak ñoom ñu ñëw waxtaan ak seen askan te loolu def nañ ko fii district sanitaire daal poste bu fi santé bu fi dem nañ fa def supervision pour subi xool ndax matuwaay yi ñu war a jël yëpp Covid bi am na fa bu ko weesoo ànd nañoo infirmier bi dem seeti imam seeti chef de village seeti serigne bo xamni mu ci koñ bi ci dëkk bi wa ak képp koo xam ne am nga kàddu am nga sañ-sañ loolu di sëriñ Ngaye pendant au moins une semaine ou même 15 jours yoo xam ne dañ doon xëy y deux véhicules yoo xam ne ñoo doon départ fii

am na nag lu mu xaw a nuroog Covid 19 bi di mbas mi nga xam ne tamit euh, ci niñ koy nemmeekoo am na luñ ci nuroo loolu mooy euh, sëqët bu fekkee ne askan wi dafa jàpp euh, virus feebar boobu nga xam ne moom mooy tuberculose moom it ci sëqët la koy dikkee wante Covid 19 bi tax na ba ñi nga xam ne ñu ngi liggéey ci way docteur yi ñoom ñëpp lëkkaloon nañu seeni doole pour mun a xeex rek Covid 19 bi kii di Abdoulaye Wade

askan bi ci biir askan bi dafa am ñoo xamante ni ñoom la ñuy tuddee ay de plus de 15 jours tousseur de plus de 15 jours yi ndaw yi kër docteur yi fi nekk mënuñu leen gis donc am na ñoo xamante ni bii tàggat nañ leen mu di ay acteurs communautaires ni mu ko wax ay relais ay bàjjenu gox ak éléments yi nga xamante ni ñoo ŋànk santé yëpp te bokk ci askan bi ñu nekk seen biir képp koo xamante ni bii tey yaa ngi sëqat sëqat boobu fukki fan ak juróom ñu fexe ba defar ay pexe ak yow ànd ñëw indi la ci kër docteur donc boobu bépp fekk bi tey ñu ngi ci Covid bi tamit activité boobu mu ngi continuer di di di am cest à yooyu may wax doon tàggat ne ñu ngi ci biir askan bi di génne ñooñu nga xamante ñu ngi safa safa bu fa rek ñuy ñëw ci hôpital bi su ko defee ñu yebal ci laboratoire bi ñu saytu leen. lii di euh, district sanitaire bu Ngaye Mékhé nag gannaaw bi nga xamee ne nemmeeku nañu euh, bi feebar bi duggee ci biir réew mi. gis nañu ne daal euh, district bi euh, askan wi songeetuñu ko comme niñ ko daan songee d'habitude pour seen wérgu yaram loolu nag biñ ci bëggee seq waxtaan ak kii di médecin chef bu district sanitaire moom daal daf ne rek nañu ca dellu siwaat ci ayubés yi kon jox nañu dig daje pour ñu mën a seq ak moom laaj ak tontu ci noonu nga xamee ne noonu la district sanitaire bi di doxee wante loolu ci bés yi di ñëw lay doon Fallou Ndaw moo doon jokkoo ak yéen fii pour Prestige TV. Euh, dellu siwaat nag fii ci Thiès mbokk yi xam ngeen ne bés yi weesu nag euh, kii di euh, JBC mi xam ne mooy chef de centre bu impôt et domaine bu Thiès moom nag Euh, def nag euh, euh, loo xam ne daal lu am solo la jagleel ko askan bi xam ne ñoo yeyoo ndimbal la ci loolu nag daal di yépp oto ba mu fees del ak denrée alimentaire jagleel ko Euh, Talla la mi xam ne moom mooy maire bu ville bu Thiès euh, ci loolee nag euh, mu nekkoon daal bés boo xam ne délégation bu Djibi si daal ñoo indi ni ni daal di ko job jébbal jaraafu commune bu Thiès ci loolu nag Edouard Latouf mi xam ne moom moo nekkoon porte-parole du jour daal di nag indi ana lan la Djibi Sy leen dénk Edouard Latouf waxtaan bu mu sekk ak soxna bu juuf ak Cheikh Fall de centre Djibi euh, comme direct, moi, man sax xaw une première participation hier mu waawoon ma ne ma Edouard dama action parce que le métal, style, le le mu gàddu dafa metti maire dafay insister di jël ay pas pour mais pour au moins pour que d'autres qui soient. comme ce combat là celui qui a montré la voie

sama frère la bi ma ñëwee ci dëkk bi moo ma dalal mooy premier magistrat de la ville donc na xam ni lii du lu lu ndaw la rek ci par rapport ak liggéey bi ma am président moo lancé appel moom am na ci taxawaay boo xam ne ci combat bi taxuwaay boo xam ni bu ñuy ñu wax ne Sénégal ñu ko am. Mhm. dañ leen di compter. mu ne ma léegi na nga ñëw nga def délégation nga ànd ak Jibi nga ànd ak Ibou Diouf. Mhm. di responsable au niveau de l'APR. Mbaye Diop bi nga xam ni xaritam la collaborateur am la.

On le si vous dëkk dans certaines situations ki nga xam ni est ñëpp muy dañ ko di mhm. ci bureau climatisé. da ak nit ñi rassurer le président de la République doit le savoir. Mhm. par rapport à Djibouti je ne suis pas plus Thiessois que lui nous bu mu taxaw dans le sens d'accompagner les populations par rapport à certaines questions sociales nous, en tant que chef de service je ne me parce que je suis un le cadre de l'administration qui a, des responsabilités qu'on a nommées ici mais vraiment je ne suis pas plus Thiessois que lui comme attitude mieux, mu yore nii wane ni vraiment j'en profite Je ne crois je crois que les voix les plus autorités nous nga xam ne yabal na le bu mais Euh, ginnaaw bu mu rafetlu ne nag euh, ni ni mel meeru Thiès di Talla Sylla moom ci wàllu boppam nag rafetlu lool li xam ne daal jëf bi xam ne JVC eh, daal dina ko jëf eh, nee na nag lii daal day wone ne JVC bàyyi xel lool askanu Thiès eh, ci loolu nag nee na ñoom de ñu ngay def seen kéemtalaay kattan ba jëmmal daal xeex bu ñuy xeex coronavirus fii ci Thiès waaye nag gën a fagurlu daal di jàppale ndongo daara ci ni ñi mel nee na nag ndimbalub JVC daal ci waxtu bu mu bu mu ñëwee ba tax na nag Talla Sylla mu ngi delluwaat rek di euh, rafetlu euh, jëf ni ni mel euh, Talla ci micro soxna bu Diouf ak Cheikh Fall. di jaarale ci yéen nuyo bo xamne ne GBC si ko du fonction yi dama tudd jibi di sunu xarit di sunu am di jam lu ñu masa woote it mu teew ci woote naa fii le 13 octobre 2018 ba dakaar ca esplanade du Grand Théâtre te dafa ñëw kon loolu euh, mu ngi bëgg a def tuuti ab diir ñu sawar lool ci dalal leen ci turam tamit rawatina ci moment bi nga xam ne

waaye lan moo ñu war ci daara yi ngir dafa doon cible boo xam ne suñu ko bàyyiwul xel taxawuñ ko maanaam liñ doon daw fa lay jaare ba mbir mi tàmbalee maanaam barkeloom bi njëkkul njëkkoon na ko fi def bërki dem ba may wax ak moom lamani ma vraiment maa ngi séntu li ñu yeen di def di ko rafetlu Euh, te gis naa ni euh, diis na waaye faw dinañ ñëwaat bu ma waxtaanee ak sama gaañi dinaa fexe yabal leen fa ñëw barkeeluwaat ci mbir mi loolu nag su amee dafa jaadu ñu di ko fësal xam nga lu tax ñu koy fësal ngir d'abord waa Thiès xam ne am nañu ànd ci lii nuy def te di ci dugal seen doole waaye dina tax mu soññ ñeneen ñu ko man parce que ñu ko mënul moom mënuñu ko mais am nañu ko man ay nit yuy def lu baax nañu leen di fësal nañ koy wone loolu moo waral tey jii ma jël temps bi yëpp di ko wax ci Djiby jël temps bi yëpp di ko wax ci baaba jaw jël temps bi yëpp di ko wax ci ñoom Baratal ñi nga xamante ni vraiment dañoo wone engagement ci biir dëkk bi même bu dul cadre waañu daara am na ñoo xam ne ñëpp xam nañ ne ñoom li ñuy supporter ci biir dëkk bi ci taxawu ay doomu aadama mais wuutu nañ ci maire yi waaye wuutu nañ ci aussi état nga xam ne loola képp ku fi nekk da nga leen war a ñaanal gudd fan ak wér yàlla yokk seen kattan ba ñu mën a continuer di nekk euh, ci jamono yooyu nag euh, fële ca Pout euh, foofee nag di commune Pout ministre ministre du développement communautaire et de l'équité sociale et territoriale di Mansour amalon nak lancement bi xam ne nag Dimbal koo euh, ndimbal bi son excellence président Macky Moko moko askan bi Moko nak moko Banak, ko euh, xew-xew ba nak ay kilifa yu bay euh, téwon fa ba taxna nak ki di Sar mi xamné mom moy maire bu commune dalal gan yi rafet mel Mustapha ci micro commission bi nga di le ministre Augustin directeur directeur président de la république di nuyu aussi gouverneur di nuyu préfet du département di taxaw foofu monsieur le ministre parce que préfet département il faut nous dalal ko gërëm parce que yàlla dafa def département bi si bu kees put si la bokk mais jàpp naa ni fan yi daanaka suba ngoon avant même ñu annoncé ni da ngay ñëw du toog mukk ñaari fan yoo xam ne

parce que dafa naa 109 milliards la dégagé pour séddale ko ay dund te lii nit ñu soxla nan ko te ñëpp xam na ni budget Sénégal du budget bu rëy noonu mais fi mu fi mu ñu fekk aussi fekk ñu voté budget bi ba il faut nga doon koo xam ni da ngaa am générosité bu mag pour mën a jël décision bu mel noonu donc ñu ngi koy sant di gërëm si loolu xam ni def na ko si réew mi waaye ñun aussi au niveau de la commune de Pout ñu ngi koy sant di ko ñaanal yàlla. si weer wii ñu nekk yàlla na ko yàlla jàppale ba li nga xam ne moom la mébét ci Sénégal mu eggale ko parce que ñun jàpp na ni li mu mébét si Sénégal bu ko eggalee rek ñëpp daan kontaan kenn ku ne nag mën ngaa gis am sa gis-gis mais ñun nag yàlla daf ñoo def ñun ñoo xam ne duñu wax loo xam ne gëmuñu ko jàpp na ni daal président bu mu ko ñaanalee jàppale ko mébétam egg si Sénégal daanu dem à un moment donné kenn ku ne dana kontaan dañu alhamdulilah loolu rek lañ koy ñaanal Euh, Gina bu mu jëlee kàddu di mais euh, kii di euh, Mansour Faye mi xam ne ministre du développement communautaire de l'équité sociale et territoriale daal dina nag rafetlu liggéey bi xam son excellence le président Macky Sall mu ngi koy def ngir jàppale askan bi ci jamono mbas di coronavirus. moom ci wàllu boppam nag daal di rafetlu doxalin bi ñiñ euh, koy doxalee ba képp koo xam ne rek yeyoo nga ci ndimbal moomee euh, nga daal di ci euh, jot xeexee boobu sax ñu jàpp ne meerub Thiès di Talla la teewoon na ko meerub Fandène di Augustin Tine nekk directeur cabinet bu président Macky Sall waaye nag ci teewaayu gouverneur de la région de Thiès di Mouhamadou Moustapha Ndaw ak général François Ndiaye mi xam ne daal ñoom ñooy saytu lépp loo xam ne aju na ci distribution mission aide alimentaire yooyu waaye nag yeneen préfet yi ak gox-gox yooyu euh, sous préfet yooyu joton nañ fa euh, Tew. Euh, kii di Mansour Faye nag dal di jël kàddu Rafet lool ana nan la ñuy ana rafetlu lool sax doxalin bi waaye nag mom indi leral ak ana ñan ñoo war jot ndimbal mi Mansour Faye ci micro Moussa Mbaye. di nuyu le maire de nga sama xarit la sama la. nek le ministre directeur de cabinet monsieur le président de la république Nous, le général François Ndiaye ak équipe am bu mu nga xamni ñom le suivi suivi de toutes les opérations du force Covid 19. Nous nuy nak ku ñu teeru nga xamni le maire de Pout tay mo accueillir délégation bi nga xamni mo wara ñew a lancer les opérations yi nga xamni pour joxe ndimbal bi nga xamni état bi moo

association des femmes imaam yeeg curé yi ñëpp bokk ci ci tànneef moo tax tànneef boobu de gis nañ ni jaar na yoon te fii ñu toll gisuñu ñu fenn foo xam ni am na fa ay coow en tout cas jotaguñ ci fépp fu ñu demagum daal dégguñu fa coow fu ñu demagul nag xamaguma ci daal waaye fépp fu ñu dem amul kenn koo xam ne yëkkati na baat indi fa coow donc liggéey boobu dafa nekk liggéey bu am solo loo tax toujours may wax ni bi nga xam ni dañuy jóge ci cinq cent quarante huit mille wala dem ci 1 million légui mën nañu wax ni Sénégal ci aduna ërnik li mu am ci ërnik moy lam le registre national unique te mu am ko ci fiabilité amul benn dëkk ci aduna bu ko am loolu ko di moy liggéey bu mat sëkk donc loolu bu amee c'est parce que aussi ñu ko liggéey da ngeen encadré ñu leen encadré mooy maanaam les gouverneurs jaare ci préfet sous préfet moo liggéey bi jaar yoon ñu leen di jaajëfal bu baax seen taxawaay boo xam ni li nga xam ni am nañ tey jii Thiès démarré nañ ko mën naa wax Thiès ci wàllum maanaam quantité mooy ñetteelu région région bu ëpp quantité bu muy jot région de Dakar bu ci topp région de Diourbel la Thiès mooy ñetteelu région boo xam ne en terme de volume lu muy am ci dund lu mu koy def mu nekk lu am solo ñu defee ko fii ci pour di wax nag ni xëy na Thiès dund ba ngi ñëw ceeb bi quasiment man na sëkk suukar saa ngi ñëw diwlin baa ngi ñëw pat baa ngi ñëw saabu bi bi ngi ñëw te bugg nañu fileeg maanaam ay fan yi néew ñu non seulement ñu jot lépp waaye ñu commencé koy tas ci commune yi te ci loolu état bi mettre à la disposition des gouverneurs les moyens nécessaires

Euh, dembu nak ñu ngi doon dalal ki di Massaer Gay euh, nek secret nek responsable des jeunes du euh, mouvement Siggi Jotna bi xam Abdoulaye Dièye moy président bi mom nak indi na ci seen mouvement ana nan nañu sobo ci xex ni ni mel Massaer Gay waxtan ci Daour Seck ñu ni won nak dañuy wut ay produits mhm. détergents yo xamni dañuy dem ci école yi mhm. ak ci mosquée yi euh, des gels hydroalcooliques des produits détergents ay eau de javel ay savons, ainsi de suite pour dem jébbal ko lieu yooyu pour que ñoom tamit mm-hmm. euh, ñu mën di fagaru mm-hmm. yàlla def euh, ñu dem le 14 mars C'est mm-hmm. le président Macky Sall jëlee décision tëj école yi fekk boobu stock bi jëndoon nañ ko pare ñu ni ah kon nañ renforcer waat stock bi dem ci lieu de culture parce que boobu mosquée yi tëjaguñu woon ko ñu ne nag kon nañ renforcer waat stock boobu ñu yoroon ci détergent ak gel hydroalcoolique dem ci nga xam ni mosquée yi

mooy ñuy raxas loxo yi di moytu bañ dem ci yi nga génn ci yi nga xam génn yi nga xam ne amul farata ainsi de suite aussi ñu dem ci li nga xam ne moom mooy mosquée yi dem ci mosquée yi aussi yóbbu fa détergent yooyu yóbbu fa ay produits gel hydroalcoolique pour ñoom ñu mën leen a jàppale ñoom ñu fagaru ci loolu dajale ko dem ci daara yi daal leen jàppale ci loolu si lañ defoon collecte de fonds ñi nga xam ne ay membre yu nekk si bi jot na mmh. bi nga xam ne na ay Euh, détergent am yooyu yëpp jox ko ñi nga xam ne ñoo nekk ci euh, kër yi nga xam ñoo wër Bayal. Mhm. yóbbu ko ci euh, lieu de culture yi ne foofu yóbbu ko daara yi ne foofu membre mouvement Siggil Jona yi ñoom it daal di lancé benn collecte de fonds ku nekk li nga am ñu dugal ko ñii 1000 francs ñii 5000 ñii 10 000 collecte ko ba mu nekk benn somme bu takku ñu jënd ko tamit ay produits détergents ay savon ainsi suite dem ci daara yi ci gox goxaat yi nekk Thiès yëpp muy ñetti communes yëpp ñu dem ci daara yi nekk foofu noonu jébbal leen ko. def ay démonstration war leen ni ñuy raxasoo war leen ni ñuy moytoo pour que kat feebar bii di ñëw bañ ñoo dal donc yaakaar naa ne en aval foofu lañ commencé mhm. pour xeex jàngoro ji mbokki nag addu euh, ci wàllub njàng bi xam ngeen ne nag euh, son excellence le président Macky Sall ginnaaw bu mu doon jàkkaarloog askan bi ci fukki fan ak benn ci weerub mai xamle woon ne nag dina de euh, xamle woon ne nag école yi maanaam ndongo daara yi dinañ dellusiwaat ca école yi ci ñaari fan ci weerub juin ba na nag fépp ci eh, sénégal ñuy eh, waajal ña yore jàngee sax ñuy waajal eh, ni ñuy def ba loolee dal di nekk ginnaaw crd bi amoon fii ci thiès ay bés yi weesu nag ñi xam ne directeur yi ci thiès don jak janoon daje ak if bu thiès ville di arfan sec ñu Hol xool nag ana ban anam la ñuy taxawee ba daal dal di antu fi ci thiès ba tax na nag ñu amaloon ndaje euh, fii ci salle Daniel Brottier bu Thiès ngir xool ana yan jéegu la ñuy def ba ndong yi suñu ñëwee école euh, du ñu am jenn jafe-jafe la jëm nag ci seen nekkin na euh, kii di inspecteur Gora fay Ndiaye mi xam ne mooy adjoint IF bu Thiès ville daal di ci indi leeral ci micro soxna bu Diouf ak Moussa Mbaye gannaaw bi ñu jotee ndigal ci président de la république pour école yi ubbiwaat ñun aussi ki nga xam ni mooy sunu njiit di euh, le ministre Mamadou Talla moom aussi euh, bind na bataaxal pour ni école yi war nañoo école yi jot nañu euh, commencé njàng mi le 2 juin bii di ñëw loolu nag pour mu mën a am defe naa foog ñu fagaru pour dund ak jàngoro ji faw ñu fagaru fagaru boobu nag da ci bokk tey li ñu def mooy woo fi directeurs yi nga xam ni ñoo nekk ci école publique yi Thiès ville ñoom ñëpp dajale leen dajale leen tey fii pour waxtaan ak ñoom ci li nga xam ne moom la ñu doon la ñu bëgg a doxale reprise bi euh, kon euh, dañ ni euh, pour doxal école bi am na lu yoo xam ni war nañ ko mën a partager ak ñoom mooy note d'orientation bi nga xam ne jot nañ ko jël nañ ko càmbar ko waxtaan ceeg ñoom wax point yi nga xam ni ci wàllu euh, ak ak cet ak ci wàllu euh, kër docteur naka la euh, nañu war a taxawoo école bi taxawoo ko xale yi waaye it wax nañu naka la ñu war a mën a organiser école bi ci wàllu njàng mi ba nga xam ni feebar bi du agsi ci gone yi kon tey jii loolu moo waral suñu ndaje mi ak directeur yi Euh, mënoon nañu rek bind note wax leen ci lépp li nga xam ne moom la ñu bëgg yónnee leen ko waaye dañ ni bu leen indee boole leen ci waxtaan wi wax leen euh, mesures yi nga xam ne moom la ñu war a jël ngir euh, doxal école yi dafa naa ne ñoom buñ ci bokkee rek danañ gën dañ ci mën a gën a dolli seen xalaat waaye li nga xam ne ñun ñoo ko xalaatandoo tabaxandoo ko ndoo téewandoo ko defe naa ñoom bu ñu àggee dinañ ci gën a sawar ngir doxal ko euh, doxal bi nag du dara euh, lu dul fexe ba euh, mesures yi ñu leen wax bu ñu demee ñu fexe ko weccoo ak xale yi fexe ba xale yi miin loolu lépp lu nga xam ne mooy mesure barrière ñu jël ko fexe ba xale yi mokkal ko maanaam taf ko ci seen ay classe taf ko ci buntu école bi ba xale bi fu mu ko gis xam ne lii ak lii la ñu santaane ngir bu ñu bëggee feebar bi bañ ñu tàgg kon loolu defe naa tey directeur yëpp xam nañ ko te yaakaar naa ni danañ ko doxale bu ñu àggee li tax ñu woo leen tamit mooy école bu nekk dafa am euh, loolu ñuy wax sa particularité école bu nekk am na euh, lu fa am lu amul ci beneen école moo tax bu ñu leen woowee kenn ku ne mu wax ñu dès maintenant Euh, lan moo mën a gàllankoor ëllëg lii ñu bëgg a doxal bu ko defee ñu mën koo gàttandu balaa loolu di ñëw loolu it bokk na ci li tax euh, ñu woo leen yàlla def na nag saal bi ñu leen woo rëy na lool euh, respecté nañu distanciation sociale bi ba maanaam kenn ku ne mètre ak genn wàll sore nga ko sa moroom ngir ñu mën a dégloonte weccooy xalaat tënk li ñuy tënk buñ ko tënkee ba d'accord ci ñoom ñu mën ko Euh, doxal ëllëg bu ñu ci télévision Prestige TV ñu daal di ko euh, Mali. Euh, nag bu ñuy des trois frontières foro zone bi Burkina Faso Niger ak réew mi di Mali Euh, mu nekk euh, bërëb boo xam ne nag euh, maanaam ay attaque daal ay cong dafay faral di am ba tax na nag kii di chef de village bu dëkk bi ñuy wax Bouli Kessi moom nag daal nañ ko kidnappé ci fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru mai ñu jàpp ne nag boobee ak ñaari at a ngi nii daal dëkk boobee dafay faral daal di ñu fay nemmeeku la jëm ci wàllu cong ak yi xam ne jihadiste ñoo koy def wala waa armée wala soldaru Mali. Euh, ñu jàpp ne nag kii di chef de village ba di Hamadou Abdou Diallo euh, mi mu doon dem nag benn foire ca Ambori jël motom di dem euh, digante boobee ak fa foire ba am tolloog ci ci 75 kilomètres bu mu demee daal dañu nemmeeku ne daal depuis booba daal dellu siwaatul ah, ñu jàpp ne nag moom ci wàllu boppam dañ ko kidnappé te daña def ñi ñi mel jàpp nañ ne daal ay jihadiste lañu ñu jàpp ne nag moom sax ci wàllu boppam di di Hama Abdou Diallo moomee euh, moom sax dafa wuutu beneen chef de village ndax gis nañ ne kii di seen chef de village ba woon di Amirou Bolekesi ka xam ne moo nekkoon ca chef de village ba moom ci wàllu boppam nag dañ ko jotoon enlevé ci fukki fan ak ñett ci weeru mars ci atum 2019 waaye boobu ba léegi ay at a ngi di nag kenn tegatu ko bët euh, ñu jàpp ne nag ni ni mel ay jihadistes yi xam ne daal Euh, ñoom ñoo nekk ci gox googe euh, ñoo koy faral di euh, def waaye nag ca leeral daal xamee nañ ne dëkk bi di Boulé yi moom daal mm, dañ faral di am cong rek jëm ci wàllu armée Mali ak armée bu ak jihadiste yi dëkk boobee nag mu ngi nekk ca zone bu ñuy wax zone des trois frontières daal di séddale wala séparer rek Mali Burkina Faso ak Niger. Euh, daal di jeexalee nag la jëm nag ci wàllub français fa bi xam ne euh, ci Il faut fan ak ben ci weerub décembre ci atum 2019 qui di Emmanuel Macron ak Alassane Ouattara euh, dal di amelon yenerek rek wala waxone dal daal euh, franc CFA dinañ ko changer euh, dal di ko wéccé ak li di écho lolé nak ginaaw buñ ñu ko bëggoon mébét boobe jàpp nañ ne nag démb ci alarba bi yemoon ak ñaar fukki fan ci weerub mais conseil des ministres ak gouvernement français dal daal euh, dëggal ne la xam ne waa Afrique moom la ñu bu bëgg la jëm nag ci changer CFA boobee daal di ko soppi mu nekk éco euh, ñoom nag nangul na leen ko euh, bëri nañ ci ànd ak ñoom ci ni ni mel waaye nag xamle ne différence bi taux bi xam ne moom moo dox ci diggante franc fa ak euro taux bi daal day nekk moom noonu lay toll ba léegi ñu jàpp ne nag jaune UEMOA ñi xam ne ñoom ñoo mu bokk xaalis boobee di ECO euh, waa zone UEMOA union monétaire ouest africaine la euh, Benin bokk ci Burkina Faso Côte d'Ivoire euh, Guinée-Bissau Mali Niger ak Sénégal ak Togo ñoom nag bëggoon nañu lool ni ni mel daal di ñu daal di ko jëmmal waaye nag jàpp nañ ne daal waa France fekk si nañ leen ci loolu waaye nag dinañ fexe daal ba CFA ñu daal di ko soppi mu nekk nag loo xam ne daal njiitub réew yooyee Euh, la ñu mëbatoon daal jàpp nañ ne euh, jot nañ ko am ngir moom seen xaalisu bopp bu ñuy tuddee écho euh, mbokk yi ci xibaaru bitim réew la nañuy ndar keppee xibaar yi xam ne ñoom ngeen doon seetaan fii ci seen télévision régionale di Prestige TV ñafare ca bitim réew ñu ñuy seetaan ci suñu réseau IPTV ak ñu ñuy seetaan ci suñu plateforme yi lu ci mel ni Facebook live YouTube ak site d'information Euh, www.prestigethies.com ak page YouTube Prestige di Dylan di qui gërëm ci seen fidélité ak seen télévision régionale euh, ëllëg ci yeneen xibaar ñeel rendez-vous de l'actualité ci seen télévision régionale de Prestige TV mbokk yi jërë ngeen jëf ba ëllëg